boo ñëwee ay deux cent la ñuy xàccee fi na boo xoolee xar yi xam ne ay cent mille franc la daan jar moom lañ lay wax deux cent mille ay cent quatre vingt mille moom xar moom yombagul quoi waaw yomb kay mooy mbote yi yi ngay jël ñu ne la cent mille franc <laughs> loolu kay du yomb ay xaru quatre vingt mille quatre vingt dix sax doo ko dégg cent rek jëm kaw cent yi mooy daan jaay ay soixante dix quatre vingt mais xar yi nga daan jënd mille ay mille nan lay wax. Eh, marché xar bi bon ñaxtu la ñuy gën a def ko contentement boo xoolee eh, normalement marché xar warul commencer ci période tabaski marché xar processus la boo xam ne année bi yëpp la war a doon xam nga année bi yëpp la war a parce que ñoom booy yi dañuy soxla accompagnement booy c'est vrai que dafa informel mais mën nañ ko formaliser ba nga xamante ne nii képp koo xamante ne yaa ngi ci nga yëg nga sa bopp. ay jafe-jafe yu métti jafe-jafe yu métti yëpp mooy booy dañuy dem jëndi xar mu cher lool ñu ñëw xam nga buñ ko jëndee mu cher nga jënd eh, nu mu tëdd nga jox leen dund mu gën a tee cher ba pare Sénégal ni muy doxee ak ni fi xaalis ñàkkee ak prix yi fi mu toll kiy jënd day am jafe-jafe kiy jaay mooy yëpp jafe-jafe kiy jënd parce que dafa dugal xaalisam xam nga donc liñ ciy ñaan rek mooy eh, gouvernement bi day faral di bu desee 4 jours cinq jours. mu ñëw maye def subvention maye ay repas ay nangam ak nangam mais tabaski tabaski du quatre jours buñ jëloon booy xam nga finance du financement sax mais defal leen defal leen defal leen nu mu subventionné leen pour lekk dund xar gi bu boobaa bépp sénégalais lambda bu ñëwee jarul muy waxaale yenn waxaale yi parce que day am cent mille day am xar bu baax. lépp moo seer ñun jaaykat yi bu ñu jëndee ba jaay ba noppi sax duñu gis xaalis yàlla xam na ne. kilo soble bu weex bi mi ngi ci 600 bu xonq bi mi ngi ci 800 800 700. seer na si jëndkat bi seer na si jaaykat bi ndax ñun moom bu ñu amee lu xéewale rek kii laa ni am lu xéewale ndax daanaka bi mu ñëwee si ñun noonu lañ koy bàyyi bàyyiwaatoo mu dem bu yombee yegg rek ñu yombal ko mu géex waaw mais instant yi nag li ñu koy jëndee dafa seer nag seer na loolu ndax saako soble 16000 15500 15750 seer na te soble boo xam ne biir Sénégal lañ ko bayee pour man war na mën a gën a yomb quoi. waaw ah, waroon na gëna mëna mana oyof ba xamanteni nengsi mana da ngay jënd ni ci mëna apa jënd lu bëri loo loh da ngay tok un mois boleh xamne sax pour nga soxla ko du yomb pompiteer bi serna bo démé ci ay laaj ak yépp ay jom ciép dawlin yoy yépp a seer démb jënd naa euh, jaay na pas cher ah soble moo wax dëgg yàlla seer na trop soble si pombiteer bi ndugg bi yëpp a seer daal waaw saa bi mu ngi toll ci kilo 600 waaw saako bu ndaw noonu ma jënd ma saako bu ndaw bi waaye laa jënd. waaw wax dëgg fa yàlla tey moom liñ mën a sentir mooy bokkut ak yeneen prix yi maanaam prix yi lan daan jëndee 1000 francs 1500 tey ñu ngi koy jëndee 3000 2750 di si wër 2000 di si wër 1000 francs wala téeméer wala juróom fukk. kon tey prix yi teer na seer goo xamante ni client nekk nekkal nii sax di jaayante ñoom day naxari pour ñu jaay leen ndax bagage bu cher boo demee si soble bi dem si pomme de terre bi dem si kaani gi dem si lépp loo kaan salade ñu ko doon jaay kilo 1000 francs saa ñu ngi ko jaay kilo 2500 xam nga te bu naaj bi yàqee bu ko yàqee nii ñun ñooy perte dañuy fayaat borom yaa ngi comprendre kon tey saa yi cherté bi moom fépp loo daal di ñaan dimbal di ñaan kuñ jàppale xam nga ay jeunes lañ yoo xam ne dañ nekk di jaar suñ doole xam nga nekk si marché bi taxale ay cent franc ay téeméer ay deux cent xam nga bëgguñu dugg si leneen gaal yaa ngi nii si yoon bi gaal yi di dem ko ñëw mais xam nga xalaatuñ lool ndax suñ dëkk bi lañ dëkk xam nga luñ mën di am dëkk bi moo ñu ko gënal.